reegal man maa laaj xam luy reegal man yow la waxal lan mo reegal la li reegal man nag xamoo reegal yu jigéen di gis lan nga bëgg ma détaillé loolu góor ak jigéen lan lañ ci waxtaane jigéen bi muy gis kay bari la ma sa morom leeralal ma la jigéen di gis wax yaa ngi bari papa dama gis mbax falaayam ma ko woon yombal li ma làkk lu ma ñu naan wax wax ji yedd zako ko ko def ma ne waat ko kay bu ko doona papa affaire seytaane ngay doxal fii parce que kii bàyyi ma rek papa. yow kii. kii damay moroomam mu ñëw taxaw fii dama taalif. kon nag ñàkk fay. Iran Ndao defal ndànk yi mu mel ni may bañ a Iblis yow Iblis papa kii wax ngay wax bi ma laal bu dee man si sa si sëñ bu baax bu dee wax. yow ilan daw kay ni sa diine ji mot na seytaane nga naan mat ah ñun dañuy bàyyi da ngeen woon ñun yu baax ni du ko def ah gisal ma lii rasulillah Hey! Hey! Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kooku mooy Serigne Cheikh Ahmad. Malaakal muut. Mooy yàlla dimbali ma doon ma ko lebal. Waa papa. Mm, Leel xabaar on daa war a gis baax ya rasulillah bu fekkee nga euh, ma dem dem campagne troisième femme